jerejeuf mbokku rewmi ak bitim rew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu way nek rek si rewmi ak si bitim rew mbokk yi bu ngeen gisee jotaay bi nak yakarna ne am lu seen xel wara dem alaaji Père Bourkhane wad borom lay maktar mi ngi ni taxaw sama droite maa ngi koy siyaar baax muy président des ménagères alaaji Makan beng borom kala gi nga rapa rapagul ñukoy ñaanal mu ràpp ak jàmm mi ngi ni taxaw ki nak moy borom Njaasaan lu ciow li bari bari boko fekke ñak wala ñak rap waye ay boko fekke fekkee yaakaar naa ne yendu ba neex na lool xare bëri na ak gileem yëpp muy Abdoulaye borom bi la kee nag mooy sama papa nee naa ko ren yëngal Ndiassane mais bañ na nag mais ren maay borom Ndiassane ah, maa ko yëngal alaaji Makan yaakaar naa ne bala ma laa nuyu damay jublu ci Abdoulaye le coordinateur de coordinateur nga xam ne bu waxee ren balaa waxati muy déwén ay waxam lu ci ëpp maanaam ful la lay doon mu pare mu pare ca dem seeti leneen borom séerans maa ngi lay nuyu bu baax a baax a bàyyi la nga nuyu mbokk Koutante ñu ngi lay nuyu di nuyu RIP TV di nuyu jàmbaar di nuyu Gaston Production di ñaan ci réew mi jàmm avant tout la paix di nuyu sénégalais yëpp di nuyu président Bourkhane Wade le président de tous les ménages du Sénégal. Mm-hmm. di nuyu El Hadj Palama Jama Diop di nuyu le PDG Gaston Production di Makan suma frère di santaat yàlla bu baax li wax ne ak mbégte rek. nawoon fa woon ki ne ci waar wi te liggéey war ko moom làbbali te dem rek a ko war. di ñaanal ñëpp jàmm du ñuy ñaari grand champion yi nga xam ne seen contrat boo gisee nii sa xel am ci lu mu dam booy ñaa wàcc si na barki démb ñibbisi na ñu régulariser combat bi digganteem ak Reug Reug combat bi nag di combat bu jëm ci le premier janvier ñuy wax sénégal yi maintenant c'est officiel. Hmm. mën nañuy wax ci mbedd mi mën nañoo taxawal ci mbedd mi waaye li am solo mooy xaatim këyit ku ne ngi jóge ci bureau CNG léegi ci directeur administratif mu signé ko muy diggante rëg-rëg ak Boy Niang numéro 2. di ñaari xale yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci Sénégal rëg-rëg mi faalewul kenn ak ba Boy Niang mi nga xam ne nee na damaa ñeme dégâts ci biir géew ñaari mbër yoo xam ne bu ñu bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex ñu war a àndi andi ko le premier janvier mu doon cadeau te ku ne xam ne ne ñaari premier janvier yi jàll yàlla defa nañ ci sutura Gaston production dafa organiser ñepp ñëpp gis seen bop ñepp bëgg ci kon tay buñu ñu ci indi rek rek boy ñaari événement bu maga maga mag waye dañ ci yamul kessé dañuy jël ama neex ak ciat daw dafa tek ci waye tek ci tournoi classe poule A poule B am xalé yu ci wara bëré ñu bëkk def événement bu mag Sénégal yëp gis seen bop loolu wax ci mën ta bari ndax ñafa dajé ku ci ne mën nga jëf di bés bu mag di ñaan yalla sun borom defal ñu sutura di ñaanal sama frère muy Makan bay sponsor yi gëna ñëw gën ci japp partenaire yi ñu daan liggéeyal li ñu yàgg di def rek te fekk ko fii duñ ci changé dara yokk dong ci war te damay wax ne ku daw war fuñ la fekk war nañ laa seen nga xelu di daw kooku nag mooy Gaston Production di structure bu mag bi di la gërëm mu doonte di gërëm ñëpp ak ñu ci fekk ak képp kuy amateur de lutte ñu ngi lay jox di la nuyu ci nuyu ba gën a sell waaye di waat Sénégalais yi di ñaanaat ci réew mi jàmm loolu mooy li ñu doon andi ñaare mm-hmm. ménage yaa ngoog makan mbéy nga waaye en daal le premier janvier jox nañ ci ñëpp rendez-vous ci combat bu mag boobu ci ñaari ndaanaan yoo xam ne bu ñu feccee mu neex bu ñu bëree mu neex mën nañu làmb ñu ngi nuyu sénégalais yëpp di gërëmaat ñëpp di ñaan yàlla ubbi bunt yi képp partenaire te bëgg a liggéey bisa ngoog lu waaye mën a jaay bëgg a jaay mën nga ko cay jaay en daal ak yeneen événement yi ne ci kanam fan yu néew aussi dina am leneen lu ñu leen andil lu ñu waaye nag comme sotteegul te yaakaar lañ ci am rek bëgg nañ ko waaye ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jégaluwaat ñëpp. Hmm. jërëjëf mënuma laa bàyyi benn question rek Jibi Ndiaye kan lay ñëw ak drapeau kan lay andi. waa Jibson production ba tey ci kër gi la mën naa ne moom xaritu ñëpp la Jibson xaritu Sénégal la di nit ku baax di suñu xarit do xam ne lu baax rek lay wax. Hmm. lu baax rek la bëgg te nit la ko raar ci société bi ndax nit day gëm boppam da gëm yàlla wóolu jàpp ñëpp daf leen ni sa bopp amul xaaj ak seen mooy ñëw le 13 octobre di ubbi fii ci arène nationale bi diggante ñaari xale yu xamante ni doy waar drapeau kan. mooy mm, drapeau Makan Mbengue. booy waranka gaaroo gaar frère sunu xarit mu delluwaat ko defu ko ren defu ko daaw yàgg na ko def ndax boo amee nawle respecté ko at mu ne nga jël trophée di ko delloo luy bari nay xarit am nay xarit waaye gëm na ni ko boole ak Makan mu di ko jàpp doxal ko lëri gi diggante booy waranka ak gaaroo gaar ñaari xale ñaari champion yu toll ci génn ku ci nekk am ginnaaw macha allah ñu war fa bëre. cargo tamit aussi war na fa bëri bëri na xale daal yu ci war a vraiment li ci programme bi yaatu na riche na yàlla nañu yàlla defal jàmm. allahumma jërëjëf. Alaaji maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax borom kaala gi di la ñaanal mu ràmp ak jàmm. lay fay euh, moo mm-hmm. daal. xamante ne la c'est inoubliable le hmm. premier janvier dañuy faral di koy waxtaane hmm. donc alhamdulilah incha allah le premier janvier mille vingt cinq ñu indil leen benn événement bu doy waar hmm. lan moo tax ngeen teel a régulariser combat bi des na lu xaw a bëri bëri non bu kon nañ ko régulariser bu yàgg dañ doon xaar juste affaire yi ibbeeku rek léegi comme ñu ngi ci mois d'octobre saison bi ibbi na moo tax ñu ñëw régulariser ko ok euh, bis boobu lan lañ ci mën a xaar non lu garaaw su ma nee comme d'habitude ñu ñuy faral di ñëwee le premier janvier incha allah ñu ñëw comme ni daan ñëwee xëy na indi ci lu bees ci liggéey bi ci trois mois yi dinañ ci liggéey ba nga xam ni que combat bi dina jaay nit ñi dinañ kontaan et xam nga rek ñaari mbëri kase doy na publicité seen tur ku ci wax benn rek doy na publicité ñun sax mën nañ suñ neexoon toog xaar le premier ñoom ñu def li ñuy def. ok xam naa ni yéen tamit aussi reporters yi naa ni namm ngeen genre événement yooyu. Mm. donc xam naa ni yéen tam da ngeen ci bay seen waar comme ngeen ko daan faral di defee rek. ok da leen mm. di félicité dèjà bële moo ko ñu fenn. te xam naa ni da ngeen ci def lu rafet. ok 1er janvier 2022 Balla Gaye Bombardier 1er janvier 2023 ñaa Niang Balla Gaye janvier 2024 Boy Niang lan moo leen ko may. sant yàlla rek sant yàlla rek xam nga. dafa am date yoo xamante ni c'est historique et su ñu nee date historique rek foog nga def ci événement parce que mënuñu la jox date historique ba pare nga ciy def lu ndaw donc euh, foog daal ñu def tout notre possible ba gars yi fu ñuy xaar ñu fekk si leen. incha ok sa frère jëm ci bis muy Mansour Ba yaakaar naa tamit le 24 novembre tey lan nga ciy wax. Siteu ak Modou Lo non un combat. extraordinaire Pourquoi extraordinaire parce que c'est un combat royal mm. donc euh, que tout promoteur rêve d'organiser mm. donc on va y féliciter Inch'Allah. On ah, va parler du di al ñaanal le sponsor yi wuyu si ko euh, ndax combat royal vraiment il foog sponsor yi wuyu si macha allah donc euh, il a un très bon combat Donc, le gars est yi wuyu si jàppale ko ci combat su dee là euh, kase la mm. foofu na xelam dal su dee làmb ju neex rek la. Hmm. foofu na xelam dara. Hmm. mais nañ ko ñaanal rek sponsor yu ko événement bi réussir. mu nekk ci événement yu mu jot na fee def yu dàq. yu ah, neex ah. mais bii yàlla na dàq yu yëpp. alhamdulilah incha kontaan ci yow. jaajëf. salaamaaleykum. laay Maxtaar maa ngi lay nuyu bu baax am na ci ko xam ne depuis affaire yi ba tey nag. maa ngi lay sant la onze bi kalimaati laay taamaat dinaa ko sant yàlla ci di wax ni Sénégal yàlla fi jàmm wàcc day xalaat li ñuy laaj lii di kenkengi nii mbir mi am dox moo actuellement li ñuy wax combat am solo bu amateur yi doon xaar taxaw na signé nañu ñuy xaar bes bu rafet bu muy def muy janvier. hmm nag ko naa ne deux mille vingt deux comme ni ko waxe ak léegi. waaw premier janvier ñoo koy hmm war nak journée bo xamni ni journée bu am solo la ak ñaari mbeuri nit ñi dañ leen fonk ci seen discipline ak seen fair play nek ño xamni aussi bu ñu nek ay mbeur yo xamni dañ wax jog leen ngeen dem entraîner ci. kenn ku nek lila war sa da koy def ko mat nga ñew livrer sa combat combat bo xamni ko ñu am yaakaar. mais ñaanal ma promoteur bi bu baax a baax parce que promoteur bi tamit sur le plan événementiel kenn ku ne gis na plateau yi nga xam ne mi ngi koy tegal amateur bi bés boobu nag liñ ciy xalaat mooy sponsor yi nga xam ne ñoo ko doon accompagner démb ak bërki démb ak ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñu woon ñu xam ne bés bi caaxaan bés boo xam ne ñëpp ji war a ñëw dugal ci seen loxo di ñaanal aussi promoteur bi collaboration ak Abdoulaye mi nga xam ni euh, liggéey bu rafet bu mu duggee Gaston production ak léegi kenn ku ne gis na liggéey bu rafet bu mu fiy liggéey te ku yokkul da ngaa moom bi mu fi ne nee ba journée yi nga xam ni ay journée événement la daan doon muy premier avril 4 euh, avril du mois ak premier janvier décembre yooyu yëpp dañu ko occupé ba nga xam ni amateurs yi satisfaction la ñu am complètement jërëjëf di wax ni bés boobu daal yàlla na ci yàlla yóbbu mm-hmm. euh, xale yi livré combat boo xam ne dina dina neex dina intéressé nit ñi euh, comme ni ma ko daan ñaane rek mu am xeex am bëri te kenn bañ a gaañu ok maa dàq bëre maa ëpp doole maa daq def dégâts ci biir géew loolooy ay kàddoom bi mu wàccee ci aéroport bi moom Boy Niang numéro 2 yow mi ménager bi lan nga wax waa loolu moom kenn ku ne xam na ko ndax hmm? ñu fàttee keroog bi nga xamante ah, ni euh, Boy Niang hmm. ma ngay bëre ak euh, Sa Kajoor waaw Sa Kajoor waaw bi ma duggee ci làmb di jël si blouson yi Aziz Ndiaye dafa ne ma non li ma soxla tey jii mooy génn tuusal ma tuusu ngéwél hmm. parce que loolu rek ngeen am ci làmb ji mais ba ñëwee waaw def nañu différence waaw suñu komba ak Sa Thiès Lamine bu Lutte TV bi ak Babacar ñoo ma tàcce euh, Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor <laughs> di ma wax gaawaayu Sa Thiès man leen ba tey da ngeen a fàtte bu boo ñëw ñuy wax vivacité ak mën a xeexam man leen ba tey da ngeen maa bàyyi ci ginnaaw mais jour boobu la mu la boo ñëw waxoon wax dafa ne képp koo xamante ni jëflan naa ak yow di ma woowee kàpp mm. kon nag loolu mu waxoon ba léegi ca loolu la nekk rek oh. moo moom rek rek rek rek mën na ko woowee kàppoo tóojal ko ah bien sûr waaw oh. loolu xam nga làmb soo jëlee ñaari xale yoo xam ne dama la wax sànq ne la ñoom kenn du ci caaxaane entrainement doo ci woo benn mbër naan ko jógal nga dem entrainement ndax combat bi nangam nangam moom da ko cay fekk kon nag ñooñu xalaat nañ ñu ñu livré ñu combat boo xamante ni combat bu am solo la bu am xeex am bëre mais bëgguma ci kenn kuy gaañu. ok yaa man. ah yaa loolu man duma ko wax xas jëm ci pays. Hmm. xas jóge faa ko doole nag. doole yaa bu doole. non ba tey du ko wax hmm. xale lañ yoo xam ne. seen différent d'âge ak taille. Mm. bari sorewul te kenn ku ne da ngaa nangoo nangoo entraîné. Mm-hmm. ok am am na solo. Père Palla maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Modou. Mm-hmm. am contentement ci daje bi ñu daje fii. ci biir fii fii di nuyu Makan Mbengue bu baax. xam ne moom te wuy juróom ba léegi ñuy seq ay contrat lépp teg si yoon. di bi di Abdoulaye Ndiaye. nga xam ne moom itamit nee naa tey bu lii mënee taxaw. liggéey na ci liggéey bu am solo heure bu nekk jokkoo na ko moom pour mm. nuyu suma mag burxaan dama koy wax ne ko ñun ñoo bokk lépp waaw ki ma ko tuddee mi ngi ci trente quelque ans mm-hmm. sama taaw mm. ma nga ca Rouen France mm. kon xam nga kii sama ak nañ ci yu koy nuyu ko ziar di nuyu famille yi combat bi taxaw premier janvier Reug Reug Boy Niang hmm. wala lamb ya ah. mala kala beeg yi mu ci dugal kon dal ma sha allah lamb la jo xamanteni ni le premier janvier ken mënu ci commentaire lu wessu li ci ok ok yag ngeena dajé yeen ñaar muy rafet te yaakaar naa ne di ngeen continuer di dajé waye nak sa bu ngeen dajé da melni ni Père Bourkhane na def différence de wala waaw ben yon lañu sama mbeureum mbeureum beure ah muy ci guuy gi moy guuy gi ak Boy Niang ok ñu bëre guy gi daan euh, Boy Niang daan le prophet ñu àndaan ma moom dem ñibbi. gagné na la 1-0. contexte bi amon ci Ama Balde bi mi bëree guuy gi. Hmm. ñu tégalen auto guuy gi daan ko Pikine yëpp indi ko contexte bobu mo ñëwaat ni rek. waaw kon lamb la daal. waaw lamb la machallah allah. rek mo ñëk wax né mo mo man mo dàq bëre mo dàq xex te Boy Niang sax essence talagul Boy Niang mi ngi ci lenen yow mi ko yor tamit gëm nga wax jooju. xam nga ñom seen ñokay waxante. Hmm. man mbër limu nara def. ak limi muy bu hmm. mako ko waxal. ay dina communiquer communication bo xamni ne xamni combat bi bëgg nañu ko te ñoo ngi ci. Hmm. machallah combat bi du risque. ah ci rek. ci ñom ñaar xana ngay wax ku ci daan man na mu jural la waye du risque ci kenn. ci ñoom machallah allah. jërëjëf. kontaan naa ci yow abdoulat loy looy sant yalla euh sant yalla rek lay tàggoo julli ci yonent bi wax jëru fa bari bo defee farata li ci des moom wax ji jëru bari ñi ci Sénégal yépp ci santat yalla di nuyu nak wa Ndiassane bu baax sumay goro fa nek chaque année sumay xarit di ma fekk kon do mo ndul sant di nuyu Khalifa kunta mi nga xamante c'est le porte-parole de Ndiassane lepp lu jëm ci dëkk moko yor di nuyu nag khalifa général de Ndiassane bu lolu jàllee aussi mënuma lu sante seigne Ibrahima kunta mi nga xamanteni suma goro la di nuyu sama goro Jibi Diouf di nuyu waa kër gi yëpp sama famille mun ma dul sant sénégalais yi parce que sénégalais yi nit bu nekkee na nga jëm ci bés ñëpp bàyyi li ñuy def fekk la fa ànd yow fanaan ak yow yendoog yow yoon may na kat wax dëgg yàlla ñu ngi masawu ñëpp ci di ko ànd ñoom guddeeg bëccëg waaye di joxe tam ñaari rendez-vous bi ku ne xam na ko mooy jamaïcain mhm. yow yaa nga le seize suñuy rakk Hmm. nak may wax waa axlu lamb yep nak am na lu bees ndax nit amul lu bésam te fu len leen yabal ngeen dem te ku len joglo ngeen jog yalla nañu yalla may wër ak fekke bañu ag ci ca le 1er janvier digënté rek rek boy ñaa numéro 2 moma tous ñom ñaar buñu waré tous wara dajé ci biir bëri ki ni ma dàq def déga ki kum bub sanni fele te ke man na bari ba lamb ja jeex te du japp ngemb lool dal bayina ko amaté